الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي بكي bokk yi ñuy seetaante di في déglu fii يوتيوب sunu chaîne YouTube TV ñu leen di nuy bu baax di leen ziyaara di leen tatagal di leen balu àq di delluseeg teeg yéen ci seen fàttali bés bi di ñaan tabaaraka wa yàlla nangul ñu jaamu yi di ñaan yàlla mu baal ñu rëcc rëcc yi euh, biñ fi jóge ko ñu ngi oon yow ci waxtaan wu am solo wu xew na diggante nabiyulay Moussa alayhi salaam ak sunu borom tabaaraka wa ak la ci xew yeb nga xamne dafa jëm ci ngeenelu koor nga xamne khususi yàlla defal xetu sayyidina muhammad ali salatu wassalam ngeenel yim ñu defal jagle yim ñu defal te mu nek ci diine l'islam lépp di xewal diine l'islam léppam xewal la rawati na nak wer koor xamné mom ne ali salatu salam non na comme niñ la ko don waxé toujours ñëpp fukki fan yu njëkk yi yërmande yàlla la way fukki fan yi ci digg bi njéggalu sunu borom la way mbokk mi fukki fan yi ci digg yi am ben particularité ben jagle te moy xaswatul badr nga xamné guddig tay Itambili, lay tambali ndax suba di fukki fan ak jurom ñaar ci wéru koor ci la xare badar xewon nga xam comme niñ ko xamé julli di nekk ñoon lu moy ñetti témèr ak fuk ak ñett éféri nekk nombre bu bari waaye yalla ci sen pas-pas ci sen dogu ci sen gëm ñu gañe yéeféer yi victoire bi nga xam ne kenn dootu ko fàtte ci lislaam liñ ciy jànge mooy xoolal jullit yooyu dañoo nekkoon ci koor nekk ci tàngaay wu métti ak xiif am na ñoo xam ne sax amuñ sax amuñoon sax lu ñu war waaye bi lislaam soxlaa fàtte nañ seen bopp loolu mooy jikkoy jullit kon bokk yi ñu ci weeru koor yow ak man naka lañ war a def mooy jéem a fàtte sunu bopp léegi-léeg di dimbale sunu moroom ndax weeru koor wi wax nañ ko ba tàyyi weeru euh, fa tabarakallahu promotion la kon ñu góor góorlu ci ci dimbalante li jafe tay lol te mu jaadu wara am su ko défé yunus ali salatu wassalam dafa wax ci hadiisul qudsi wala tabaaraka wa taala mo wax yunus bi ne ko allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni ala awni aqihi aw kama qaal subhanahu wa taala hadiisul qudsi mooy wax yàlla ju bindul ci alquran yàlla dafa wax ne man yàlla du ma dañ di dimbale sama jaam fekk jaam bi mu ngi dimbale moroomu jaamam gis nga yàlla bu waxee dara teg ku ci condition man ak yow nañ daw góor góorlu ci loolu kon bul ne mukk amuma lu ma dimbalee ku ne su ma amul du ma def bis boo amee doo def kon may ñi ngi fàttali kenn ku ne foo toll na nga mënee dimbalee ndax weeru koor wi kat weeru koor yëpp nit ñi daan nañ soxla ndimbal waaye wii moo ci raw nag ndax situation bi jamono ji toll kon ndimbal baaxoon na jamono ju ne waaye fi mu ne la gën a baax ci jamono ji ñu toll ndimbal baax na ci ci weer wu ne waaye ci weer wi la gën a ti waaye weeru koor ndax loo ci def suñu borom da koy gën a ful kon fa tabaarakallaahu ñu bàyyi ci xel te xam ne yàlla subhaanahu wa moo bind te yamalewul yow mi mu jox lu bëri c'est pas que da koo defal lu ko kële defalut ci mu xañ que dafa def yow loo deful ci yërmam sabab si yërmandem rek ci lay ci la ñàkk yemale lépp ci maanu la ngir ñuy dimbalante kon ñu jéem a wàccee kàddu yi foofu sa fàttali bis bi loolu la woon jëmele fàttali ne suba la khaswatul badr ñu def ñaan ñaanal sahabi yi xamne ño taxaw ba ñu jot ci l'islam waaye nak ñu gëna a takkuwaat xam am nañ ndono lu diis tabaarakallaahu ahsanul khalikhin ñu yemele fu kàddu yi di jox dig daje bu suba ak jàmm inshallah di fàttali ñu wéy di abonné ci suñu chaîne YouTube bi di Akwaba TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي شين يوتيوب أكوابا تي في نيغي نوي باخ دي لين زيارة دي اندي سن نافي لو دي فوكي لو غودي اك جوروم نيار تي ويرو كور فوكي س نافي لي تاي بي نيك نا فوكي راكا فاتحه بن ان انزلناه في ليله القدر نيار يون داكور نيو رابوتيكو nga tek ci bop rek benn yoon fatiha fukki rakka la rakk bu ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu fi laylatul xadri ñaari yoon qul huwa allahu ahadun benn yoon incha allahu rabbi tabarakallahu naafile gi sunu jàmbaar ji di seydina ali karamallahu wajh nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku def naafile gi yoxti misla sawaabu anbiya aw kama xaal yàlla dina ko jox yool bu toll nii yool bi mu jox anbiya yi yàlla nañu ko yàlla mën loo ba ñu def ko te lépp lu ñu ci dig yàlla yàlla jox ñu di koy suñ jot salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.